Tuubaa ndeysaan dafa daan wax ne. Hmm. ku jëm ci yàlla. Hmm. booy xaar gaa yi doo dem. dëgg hmm. ndax ñu naan xaaral ma sangu ñu naan ma sol samay dàll ñu naan nigal ma jëli sama ñaw ba. nangam nangam. mu nee na yow miy dem. jógal rek sol saw daal ci dem boo ci amee fulla ba demee ba yàgg. ñu ñoo nga xam ne ngay dem de. door laa dab si. waaye boo xaaree ñëpp ñëw. doo dem. au mhm. jukuraan ci laaj bi. allah jërëjëf oustaz ci tontu lee amati solo loolu jërëjëf mbokk mi ci laaj bi ñu jaajëfal ko jël kee di yërndu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw sëñ Abdourahmane. dama lay siyaar na lu baax a baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ñu ngi lay topp si fajar beeg émission yi rek ñu ngi koy topp mbàkk yal na yàlla baax jërëjëf. loolu yàlla fa jërëjëf. waaw di jaale mboolem jullit ci deewu Mouhamed Moursi moom. Mm. Fatou Fatou ndeysaan. Mm. di wax oustaz ki ñu invité soppeem la. Mm, oustaz Mouhamed Lamine Dramé. waaw ñoo ñëwoon na daaw di géej fekk oustaz toog foon ko si jëf. man mm-hmm. daal ma fekk xam ma fekk ko ma foon ko si macha allah jërëjëf. waaw si waay ne kenn war macha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow itam tey rafetlu sa dugg bu am solo boobu Abdourahmane Oustaz di jaajëfal soxna si di soxna Njinde Guèye mu nga fële moom tam ca Tiwaawoon Pël di ànd ak ñun jotaay bi ñu koy nuyu di ko siyaare asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah euh, Oustaz waaw euh, maa ngi siyaar bu baax a baax na nga def ñu bu baax a baax rafet émission bu baax a baax jàmm rek kay jërëjëf jërëjëf Ndiaye euh, man nag waaye ah, des daal daa am ñoo xamante ne daal dañuy dañuy laaj contrôle maanaam ñuy contrôle daal. Hmm. mais des daal soo bëggee la yoon yow. Hmm. dañ lay sonal sonal yoo xamante ne daal day xaw a yéem lool. Hmm. day dem ba yow maanaam euh, saa ñu neex nañ ñu baleen sax da ciy gën ndaxte des fois da nga ciy ragal dara. comme ni ko saa si waxee waaye des daal neexal leen dégg ndaxte des fois boo bëggee dëgg daal dañ lay boo xamante ne daal. ndeysaan. day ne ren di sonn daal. ma laaj nag ba xam loolu noonu ngeen di jox pour ñu la nga nekk sa jàmm boo bëggee dëggal ndax ñoom daal daa mel euh, daal moo leen di gën gënal. d'accord. te boobaa boo boo bëggee def jaar yoon daal da ngay sonn lool ba nga xamante ne daal dana ci jël ay somme yoo xamante ne daal doo xam nu muy demee. incha allah oustaz dana ci ah, ginnaaw bi loolu jaar nag yow nag maa ngi lay a baax maa ngi lay suivre bu baax ne maa ngi laaj sa diggante ak euh, oustaz Aliou Sall ni ngeen def ba xamante ne maa ko laaj ndax bëgg naa la bu ba tey. ndeysaan jërëjëf. maa ngi siyaar a ma nga fële ci asalem di ànd ak ñun jotaay bi. di ko ndokkeel bu a daal euh, ñoom ñi nga xam ne ñu yëngatu ci wàllu commerce léeg seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy contrôler buñ ñëwee te fekk leen ñu ne ci ay njuumte xëy na ñu bëgg a fay tegu ci yoon day mel ne loola dañ leen ci tegi coona mhm. ñëwal ca bureau ba boo ñëwee da ngay def nangam mu mel ne daal mujj gi joxe neexal te dem nga dem mooy gën a yomb muy laaj ba xam bu boobaa baa duñ ci am bàkkaar affaire bu jaar jubbantiwaat la mhm. suñ bàkke ñoo ci barab barab mhm. di war a contrôler waa ji nga ne ko lii nga def du noonu kon war ngaa fay nangam. léegi au lieu nga wut ab rosi bindal ko mu dem fay. nga ne ko joxel trois mille nu bàyyi la. mu ne déedéet damaa bëgg rosi ñu ne ko rosi amu fi. te waaw. Mhm. def nañ ko taximaan boo xam ne bii barki démb. taxi bi lañ ne ko nangam ngay joxe mu ne man rosi ñu ne ko kon demal barab sàngam. Mhm. tëdd na juróomi fan door a mën jotal jotaat ci kayitam pour la gëyaat. seetal loolu. léegi nag gàllankoor yooyu su amee bu ñu la ko def boo ko defee ki la ko defloo moo bàkkaar bakkaar bu koy topp adduna ak àllaxira topp njabootam mhm. waaye yow mi ko joxe amul benn bàkkaar ndax dañ laa dañ laa forcé mhm. fa man turra xayra baaxin wala ajjin mhm. ci laajam am solo bi jërëjëf oustaz tontu lu am solo li ñu ngi koy jaajëfal baax di ko ndokkeel mbokk mi duggoon léegi oustaz nee na professeur wala bokk ñiy jógee Égypte wala di jàngale demee noonu ndax dañoo bokk ci ixwaan yi wala déet ñu jël kii ba noppi ñu jël ko balaa gën a yàgg ci biir te jéggalu ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu. bisimilah ah, waaw ñu ngi leen di nuyu leen siyaare. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. grand mm. ñu ngi lay fay baax baax. di nuyu El Hadj mm, jërëjëf ñu ngi lay fay. di nuyu jërëjëf jërëjëf. Pape Mor Diaw Japon. Mm-hmm. Mm-hmm. Pape di ziare itam jaay Angleterre. Hmm. di ziare Sall Mbadou Fatla. mais di ziare waa di fan diaspora yëpp la hmm. leen taxawaay. amiin amiin jiw. amiin amiin. ñu ngi ziare nag gan gu baax bii ngeen eh, ñibbi sànq ñu ngeen invité ko. Oustaz Mouhamed Al Amin Dramé. Hmm. yàlla na ko wàllu jiw. amiin. Eh, waaw yow ak àllaaxira bi am na taxawaayam rafet na seen taxawaay rafet na. waaye gis nga boo jàngat euh, mbiru Mouhamad Moursi da lay fàttali rek Gamal euh, euh, Abdel Nasser mhm. jamono yi mu nekkee président jëwu ji dañoo woon comment bi koy maasee comme ça ne ko comment bi ñu koy bi ñu koy dantale yaramam ñu def trois jours pour mën koo rey ndànk waaye gis nga Morsi président bi fa nekk nii moo ko nommé woon ci poste chef d'état-major général des armées mhm. te kookoo ko war Al-Sisi waaw Al-Sisi yi moom la Occident bi mbir mu war waaw Mursi nag bokk na ci li gënoon a déranger tubaab bi muy l'Occident mooy wàllu koom mhm. parce que dañoo xam ne ci koom programme bi mu jëloon da ko doon réussir am na lu ma rëcc nag ci waxtaan bi su ma répété woon ndax ci lu mel nii rek lañ nekkoon Euh, Mor si ko tegoon si yoon woo xam ne taaluñu ci Israël loolu nag moo gën a tax nag daal di attaque waaye da lay fàttali leen ne sànni sunu mbokk yu baax yëpp ci Algérie Abbas yi Madani ak Abou Badji di leen euh, Algérie wóoloo dénk leen assemblée li élection législative bi gañe ko. Mhm. tàmbalee liggéey fekk ñoom commencé ñoo liggéey ci mairie ya mairie yi njëkk a gañe ñëpp ku ci njëkk. ku nekk ñu joxoon sa àq. daaw ñu ah ñu ngi ñu demee Liza Liza ñu wooteel leen bañ demee ñu wooteel daaw ñu mukk ñu dina dinañu dinañu dinañ ciy sécurité te nag sécurité mooy euh, jub rek parce que njub aussi jullit bi yàlla dafa dikk mu jub ba jubal jub ba mel ni ku bañ boppam bu ko defee loolu bu ci nit xëy na économie day daal di normal li yëpp li lëmbe suñu réew mi problème boobu rek waaw te nag ci tënk rek suñu borom subhaanahu wa taala alal baalu ko yaa ayyuha lazina amanu kulu mimma fil ardi halaalan tayyiban eh yéen nit ñi yéen nit ñëpp lekk leen li ci kaw suuf te mu te mu te mu dagan ci tey bu dee ñu gëm yàlla yaa ayyuha lazina amanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum washkuru lillaahi in kuntum iyyaahu ta'buduun yéen ñu gëm yàlla lekk leen li tey ma leen wut da ngeen sant Allah ci wërsëg boobu mu leen xasida suñ ko dul yaam ka adduna bi def seen sëriñ yàlla dong ngeen di su ñu foofu da ngay wax ne lu xaram baax ko moog bokk ak yàlla daal waaye xoolal yéen ci yaa yor rusul ee eh, yéen yonent yi kulu nag wa amalu saalih eh, ee yéen yonent lekk leen di teey kese kese kese def lu baax suñu waxtu ko ñu lekkul lu def lu baax yéen inni maa ta'maluuna aliim lu def xam naa ko xoolal li nga boobu teg yonent yi ñu defe ne jeex na mu ne suñu yonent nag ngeen li muy def fastaqim jubal fastaqim kamaa umirta jubal ni ma la ko sante ñu ne déet yàlla mu ne sabama nit ñi ànd ak yow mooy suuf si suuf bu ñu ko sa xeet lépp jub ñu leen ko sant mu ne wala te doxal leen jaww li ko fi alal ku ci jalgati rek jaww teel mm-hmm. waaw inna al insaana la yadfa an ra'ahu istaghna suñu borom teg inna yi moom yàlla ñu naan ko amaloon a passé ñu leen def nañ ci décision donc gis nga arab yu mel président jullit sax la wax ñu wax arab arab yi ko gën a seetaat ñu mel noonu maanaam dañoo bëgg redresser économie redresser ci yoon moo tax ñëpp dañ leen contre benn yoon waaye yàlla nañu yàlla dolli dimbali professeur ñu ngi ko doon nekk lii asxaab foq do daf ñu koy nekk lii ndax li ñu leen di waxoon sallallahu ci bisimilah bi rabbil xulaam moo mooy liir ndax ba mu dañ ko rawee ñëpp ñu naa bi rabbil xulaam comme nañu euh, borom xale bi mu yàlla subhaanahu wa taala lii nag day li islam di ko gën a gën a jëme kanam te nag ñii aussi ñoom nga xam ne ñoom lañu def lii ay suhadaa lañu martir ma xiyam ci suhadaa yi dugg la ñuy dugg lenn rek laay mu xam ñu koy jëndee pour ñoom ñi Euh, am facebook boobu du ñàkk du ñàkk surtout bu dee dañoo wécc ñoom donc rek ñu daal ci def ak laabiri rek incha allah bu ko defee bu ko nit doon def te yorul mbooloo sax ñu mën koo def ci àll mën ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Al Assane ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal mbokk mi di Sidi Seck ma nga ca OFNAC di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf oustaz tey Al Assane indi na ab laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jullee eh, Mouhamed Moursi mi eh, def salaatul xaayib nan la koy defee ni mu koy defee jërëjëf mooy euh, sàppe ni ñuy sàppee jullee néew mm. ilimaan ji ne ci kanamam mm. teewal ci ci xelam néew baa ci kanamam mm. mu kàbbar kàbbar bu njëkk jàng alfaatiha kàbbar kàbbarum ñaareel salaatul ibrahima ya kàbbarum ñetteel mu ñaanal ki ki faatu allahumma innahu abduka min abdika min amatika ba mu jeex kabarum ñeenteel mu ñaanal mbooloo maak ña ko doon jullee te sëlmal noonu la koy def incha allah. moo xam fu mën nekk ci àdduna si rek. macha ci laajam ba solo bi. loolu am na solo Oustaz jëf ñu jaajëfal ko baax baax mbokk mi ngi doon laaj léegi ci wàllu ixwaan yi ak ñi nga xamante ne ñooy jàngalee fii ak jàng yi ndax ñooñu euh, ci frères musulmans lañ bokk wala de déedéet xam nga Égypte. Mhm. ñaare bu ñu fa jëlee wufoot yooyu di ñëw fi ustaas yooyu. Mhm. ñoom bu ñu ñëwee. duñ la daawa ci liñ nekk dañ lay jox xam-xam soo noppee nag te bëgg gëstu yow booy gëstu yaay gëstu ba xam ixwaan ya nangam wala salaf ya nangam wala nangam ya nangam waaye wala wahabi ya nangam waa ñoom ñaar duñ la duñ la formé ci dañoo bëgg nga gëm ixwaan yi d'accord waaw yow yaay jàng boo paree xool loo ci bëgg doon nga doon ko jeex na loolu tam Soudan léegi danañ koy def am Arabie Saoudite daal ngay ñëw ñoom ñu fas yéene laa def ñoom lañ doon mhm. waaw <laughs> ah, ñoom danañ def loolu. waaye ñaar réew yi moom wax dëgg yàlla. dañ lay jàngal te bala nga jàngal rek te bi laa bàyyi nga dem. macha allah walaaw taala alam wa sukuraan. jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu mi nu jot na ba tey ñeent fukki simili ak juróom 88 628 98 98 asalaamaaleykum. bisimilah bisimilah bisimilah yaaram. baaji naka waa Kaolack. alhamdulilah gën a la jege waxukaay gi ba mu gën a leer.

loolu laa doon laaj lan la aaya bi teg. d' accord. waaw maa ngi jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te rafet lu duggam bu am solo boobu soxna si mu ngi tudd Jatu Ba mu nga fële ca Wakaam di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk mi baa ji Kawlax lay woote di jéggulu ci qualité duggam googu mhm. euh, ma nga ci suurat albaqara nee na aaya deux cent cinquante neuf euh, ci biir aaya ji rek la tibb ab baat indi ko muy wanzur ilal idami kayfa nun lizuha thumma nakzuha lahma mhm. falamma tabayyana lahu xaala aalamu anna mhm. ci aw kallati marra waaw tabaarkalla mhm. sunu borom day wax euh, foofu lu jëm ci dekki euh, aw kallati marra ala mooy dafa amoon ku ñu wax Useyru dafa mas di dox ba mu yàgg mel ni ku jógee mel ni ku jógee ngaabu jëm càlle romb dëkku ñoom xaajum sàmm Mm-hmm. ndeysaan mu fekk fa ay xotti ndaa mm-hmm. ay garab waaw mu yëg ni fii dafa am ñu fi dëkkoon mm-hmm. ndax ab gent la ndax ab gent la léegi xel mi dem ci ne waaw naka la yàllay dekkali lii foofu mu taxaw di ko wax mu ngi war mbaam yor cere yor soow yor ndox <laughs> est que yàlla rey mbaam ma rey ko moom garde cere jaag ndox ma ba mu am fa nangam ba mu am fa téeméeri at. Mhm. sunu borom ni ko pëkk pëkk mu dekki waaw. Mhm. daal ne ko euh, xoolal sa mbaam mi. Mhm. mu xool mbaam mi gis ne fii la mbaam mi nekkoon. sunu borom daal di yëkkati yaxi mbaam ya mbàkke. sàng kook aw yàpp. sàng kook akub der mbaam ma tupp tuppee ca nekkoon ak yëpp siwaat muy jaaxle mu ne ko ah, yoroon nga cere yoroon nga soow lam ya tësan na mhm. amu ci bu sajj mbaa mu forox mhm. te it am nga fi téeméeraat allahu akbar ci leen ne yàlla nag ko yàlla laa kuli seen xajar lu ne man na lu ne loolu la alxuraan lu lay nettali mhm. wane na kon dekki am na ndax kii yàlla rey na ko téeméeri at dekkal ko suukaram sa cerem ja amul dara lu ci waaw. <laughs> léegi soo seetloo suñu mbàkkee. Hmm. nit dana tam dana tabaski. denc aw yàppam ci consolateur ba tam xarit jot. Hmm. mu def ko ca cere ya. dëgg te du yàqu. Hmm. foofu la sunu borom jaar li nit nag. mu xam ne yàlla ala kulli seen xajar lu nekk la man mooy hmm. sukran ci laaj mbokk bi am solo bi jërëjëf oustaz ci tontu lu amati solo loolu ñu ngi ko ci jaajëfalaat bu baax te di la jaajëfal te di ko rafetlu di xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98 33 841 22 33 amraa xadimuka mardoomo munuka amira muqahin aminan في الأوالم كلها فيرصدهم نحونا الإلهي بصيرا وجائي وسمي في الحبيب وإبي 88 628 98 98 mi ngi moo teg ba teg juróom fukki simili mbay mbaw ci Pikine la nekk xaw ma bu bees nag bu mag mi nga ànd ak ñun jotaay bi Ousmane ba ci Isra la nekk nee na moom tam di ànd ak ñun am na ku ñëw ci yoon bëgg bokk xaaj Mbàkke ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah Mbàkke si la yaaram na nga def waaw waaw waxi olof Kajoor Kajoor Tayor. ah d' mooy Tayor. waaw. d' accord bisimilah xewoon na fi de. yow damay jàngi ci waxi olof damay dégg wax yu raar ay ay rëpputuluk ay <laughs> xeet yooyu xeet ay ay ay olofal yooyu. ay xeeti olofal yooyu dama koy jàngi ci moom. ab Tayor de xewoon na fi daal moom. waaw ñu lay ñu lay ziar bu baax. waaw sa baax safóor ak téyeer ak mbulaañse borom bitik buy làkk ay farañse. <laughs> yow daal da baax yow. ñu lay ziar bu baax baax. jërëjëf jërëjëf. ñu lay ziar bu baax nga may ma ziar euh, sama sëriñ sëñ sëñ xanaa kan Touba kan. jërëjëf mu ngi lay fay. ndax damay bëcc yi woote bi ndax euh, benn bi dama toj waxtaan moom yow de dégg naa la ngi woote ci émission. man de mun ma. Mbacke Sylla ak Nicolas ma ne ko ah sëñ bi hmm. da ngay déglu. Ah, waaw day déglu de. maam maam ci mbégte lool nag. ndeysaan waaw ndax moom mooy sama wasila. waaw ñu ngi koy nuyu baax a baax ak mbokk taal bi boo xam ne teer la Mass Dangal nekk mooy itam mu romb ndeysaan bi ma ko naa ma yow de damay dégg woote ci rajo bi. ndeysaan. waaw mu gën laa fonkaat daal ma am ci mbégte lool. jërëjëf jërëjëf. waaw di leen siyaare baax a baax. baax na mën ko lool nag. baax a baax waaw moom kay tubaarkàlla xam naa fan yi moom fan julli bi moo tax am ñu xaw a dugg ci woote ba yooyu ndax ngelaw yi ñu lebante doon ko fay. waaw bàyyi fay ngeen yëpp. waaw moom de xam naa jot ñoo fay yëpp sax waaye <laughs> macha allah daal. noonu baax na xaw nañ cee xaw nañ cee noonu baax na noonu baax <laughs> laaj ñaari laaj. Uh-huh. <coughs> benn bi ci alxuraan la beneen bi moom ci sama mbokk tey yi laa koy laaj xam naa xaw ma dina mën a jàllam de. bisimilah. waaw benn yi laaj na euh, ci euh, jàppatuma sax yow ma yàqoon munaafiqoon li leen amul amoon. Hmm? unzurna naqsus min nuurihim ba aaya ba jeex wala mu. wa yaqulu almunaafiqiina walmunaafiqaati lillaziina aamanu. Mm-hmm. waaw kay. d'accord waaw mm-hmm. bu ci def sa mbokk tey yi laa koy laaj. Mm-hmm. waaw damay laaj ba xam xaftaan caay ak semis ñaata morceau lay doon. xaftaan. caay ak ah d' accord maanaam da bëgg téyeer yi woote tontu ko. waaw damaa bëgg ñu woote tooy ko mën naa leen a may ne fii ba affaire bi <laughs> ku ko tontu ku ko na feexu naa jërëjëf. maa la mel kon eh, mbubbum julli incha allah. mbubbum julli gan. <laughs> julli gan. jërëjëf jërëjëf Seexuna am na solo Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk mi ngi tudd Modou Mbacke Ndoye ma nga fële ca Touba di ànd ak ñun jotaay bi duwarkàlla jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet noonu muy àndee ñun jotaay bi eh, mbokk mi de ci suratu alxadid la dem suratu xadidi aaya eh, treize yawma yaqulu almunafiquuna walmunafiqaatu lilladina amanu nzuruna naqtabis min nuurikum xiilar ji o wara akum faltamisu nuura ba aaya ja jeex waaw waaw tubarkalla sunu borom day wax ne bés a ngi ñëw bés a ngi ñëw boo xam ne munaafixoon yeeg munaafiqaat yi dañoo dem yomal xiyaam ñu seen ne munaafiqoon yi dañoo nekk ci coupure courant amuñu leer munaafiqaat yi it amuñu leer uhm. munaafiqoona mooy ñi nga xam ne góor lañu ñooñ lañ gëm ak lañ doon wax du benn mhm. munaafiqaat yi muy jigéen ñoo xam ne ñoom tam lañ doon wax ak lañ gëm du benn mhm. ñu dem yomal xiyaam amuñu leer mhm. ñu gis lasina amanu ña nga xam ne ñoom nekkuñoon ay naafiq ñoom ña nga am leer ñu leen nag unsuru naa naqtabis min nuurikum xool leen ñu xam nga ki am leer bu la xoolee leer ga day ñëw ci yow ñoo ne xool leen ñu naqta bismi nuurikum ndax ñu mën a niitu ci seen leer gi ndeysaan xëy la am ko leen tuug <laughs> irjiu waraakum dellu leen nga àdduna <laughs> faltamisu nuura <laughs> bu ngeen demee àdduna ngeen dem ca Senelec ngeen abonné ndax ngeen am leer est-ce que waaw est que waaye def say làmp ñoom seen yooyu bu taal jotee boo taal doo gis dara da ngaa war a abone ñu indi la courant abonnement yi nag suñu mbàkki kenn dem yombal xam di ko fa def mhm. foofu gisee fermi la dëgg la moo tax ñu doon fal waraakum faltamisu nuura dellu leen ginnaaw ngeen seeti leer naka ñu gestu rek mel ni kuy seet leer rek ñu daal di bu ñu xoolaatee mhm. ñu gis diggante ñoom ak gaa yi mhm. am benn miir bu fa nekk dëgg la ba xam léegi dutuñu waxtaan unturana tamit bu noorikum ndax miir ba xas na fa am léegi mm-hmm. wasi koran ci laajam ba am solo boobu jërëjëf u oustaz ci tontu lu am solo loolu ñoo ngi koy jaajëfal bu baax baax mbokkum téyër moomu mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah bismillah bismillah d'accord maa jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar ngiraan daaru salaam melax waaw kay ngiraan naka waa daaru salaam melax ñu ngi jaar ustaas bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf ngiraan ñu nuyu waa groupe diaspora bi yëpp jërëjëf jërëjëf ñu jaar bu baax a baax yàlla am sunu émission yi am na solo lool alhamdulilah waaw chaque fois chaque jour mu si wootee dina am ñu bëri ma dañ jàllale ci mel ne sëñ Malick Afa sëñ Malick Ndiaye ñëpp waaw dafa amoon benn laaj bu ma doon waaw léegi damay fàttali moom biti moom boo ko yoree boo balee guddi ñu hmm. ne la bale guddi baaxul. Hmm. bale ñu ne la bale suba gi baaxul da ngay dàq ci li am man léegi may laaj ban heure la ñu war a bale. d' accord <laughs> day na waar eh, tarkal alaaji Youssouf ñu ngi koy jaajëfal baax ngiraan daaru salaam melax mbokk mi Mor Cuun la tudd ma nga fële ca ndaamloo di ànd ak ñu jotaay bi de mhm. dëkk suñ mbokk ma dee ci mbeng mhm. Mhm. am na solo oustaz jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax mbokk mi alaaji Youssouf nee na boo yoree bitig daal boo xëyee boo dee bale guddi ñu ne bale guddi baaxul day tax a ñàkk ngay bale suba teel ñu ne da ngay daax client te mënee suta ñàkk a bale neef di def xanaa la waajo waxoon rek hmm. araan naasa xat axarru bi bax yin wari bëccin waxay yin idama mayasa naasu aaxilu rek moo yow daal lii ngay def def ko rek ndax nit mënut a def lu waxul waaw nit laaj ko ko doon njaay mbaam ma rek waaw ba mu ko yéenoo ñu ñu ne déedéet mm. mu amat ñu ne déedéet waaw ñu toggoo ko mu ñu ne déedéet kenn ka war ñu ne déedéet mm. xale ñu ne mm. ñu dugal ko oto coow la gën a dëkk wallaay kon nag da def li ngay def rek moom mm-hmm. daal am nga waxtu bale guddi la baleel guddi mm-hmm. waxtu suba la baleel suba mm-hmm. na sedd rek mm-hmm. dañu def nag waxe aada yeeg ñoom seen yooyu la tabarkàlla wa shukran ci laajëm bu am solo bi jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu waaw mbokk mi nee na waaw koy jërëjëf salaamaaleykum waaw koy salaam wa rahmatulah bisimilah El waaw koy jërëjëf jërëjëf waaw Mouhamadou Makhtar Mamadou Makhtar bisimilah naka waa jëppal waaw ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah. waaw laaj bi mu amoon day dem ci suuratul wal fajir. waaw kay waaw. waaw euh, wa tuhibbunal maala hubban jammaada. Mm-hmm. moom laa fan yi tam yi mu nekk lool la daal. Mm-hmm. <laughs> jërëjëf waay. tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf oustaz ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax eh, te di ko ndokkeel eh, jërëjëf kan moo nekk noonu di ko jaajëfal bu baax a baax eh, mi ngi noonu oustaz wa tuhibbuunal maala hubban jama loolu lay laaj kallaa isaa dukkatil ardu dakkan dakka mbokk mi nga tuddoo libaas si mu nga fële ca liberté 4 di ànd ak ñun jotaay bi mhm, jërëjëf libaas ñu ngi koy jaajëfal baax a baax mbokk mi daa bëgg a bu waaw loola laaj oustaz kallaa isaa dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku safan safa dafa am ñu ci alquran fii ci saar yu mu toll suñ mbàkkee mhm. eh, ñoo def ñoo xam ne dañoo defee ne mhm. isa mabtalaahu rabbu fa akrama mhm. fa yaqul rabbi akrama isa wa amma isa mabtalaahu fa qadara rizqa fa yaqul rabbi ahana maanaam doomu aadama mu wut ñaari nattukaay bu amee xéewal daal di jàpp ne xéewal gi tax na moom yàlla da koo teral bu ko bu wàññee xéewal ga mu ne rabbi ahanan sama boroom daf maa doyadal suñu borom ne kallaa tuug tuug dal leen ginnaaw ci loolu yéen da ngeen a am ñeenti feebar mu ne yéen nit da ngeen a am ñeenti feebar lu leen dal lu leen ko teg benn laa tukkari mënul yetim yéen ab jirim du ngeen ko teral est-ce que ndax den koo xeeb ndax li fi bàyyim nekkul allahu muy benn Mm-hmm. wala taxaaduuna ala taamil miskin mm-hmm. miskin du ngeen soññ seen waa kër mm-hmm. pour ñu toppatoo lu ñu lekk muy ñaar mu ñaari feebar waaw wa taakuluuna turaasa ak la lamma alal alal ndono moom ni ngeen koy lekkee ñaawaay bu ëpp na nit ko faatu amoo ca cër ba noppi lekk alal ja muy ñaar ñeenteelu feebar bi mhm. wa tuhibbuuna al maala hubban jamma mhm. ngeen bëgg alal bëgg goo xam ne gi nag jar na leen jaay seen ngor mhm. jar leen jaay seen dignité jaay seen personnalité pour am waaye kàllaa baax na rek est que baax na rek isaa dukka ci ardu dakkan dakka allahu akbar bu suuf dukk dukkee hmm. <laughs> yéen ñëppay wadd est-ce que. mooy laaj ba am solo jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu ngi ko ci jaajëfal baax te di la jaajëfal euh, une jot na trente minutes moo des ñu yëkkati jotaay bi ñu jaajëfal ko te xaar keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Mbacke ñu ngi ziar. jërëjëf na yàlla nangu ziar. Aline Badara Diouf Wakaam. Aline Badara naka waa Wakaam. ñu ngi nañuy sant bu baax. jàmm rek kay Diouf. mbaa yéen a ngi am jàmm rek. alhamdulilah Diouf. waaw ziare ñu suñu ustaaz boobu ñaan yàlla defal ko jàmm. jërëjëf jërëjëf. yow ko xéwale ak bark bi xam-xam. alhamdulilah. di barke Seydina Omar. tubaarkàlla. mu digal si njëriñal ayatul kursi. njëriñul ayatul kursi. waaw mu dikkal ñu si tuuti rek. d'accord jërëjëf. ndax bëgg suñu xol bi. jërëjëf. di jaar waa Wakaam ñëpp rek rawatina suñu Souleymane ak Baye Mbaye. ndeysaan. ak seen Njaw ñuy ziar ñëpp jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi Daawuda Jóob la tudd ma nga fële ca Thiès grand standing di ànd ak jotaay bi. tubarkàlla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko euh, rafet lu duggam bu am solo boobu. Mhm. jërëjëf Oustaz kii nee na ayatul kursi yu la bëgg nga ñëwal ko ci. jërëjëf ayatul kursi de ci njariñam. Mhm. alayhi salaam nee na koy def saa bu jullee ba noppi jàng ko. Mhm. faatoola la te duggal jànna. waaw kuy def saa bu sëlmale jàng ayatul mhm. booy faatu rek di dugg incha allah mhm. jërëjëf oustaz une na ba teg benn simili mbokk mi dafa bëgg a bokk ci jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa naa la jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar amiin yaa rabbal aalamiin yal nañ ko yàlla boole amiin amiin jërëjëf jërëjëf koy man nag dama amoon benn laaj. Hmm. Euh, parce que dañ maa may ki nga xam ne nëbbu ma ko daal. Hmm. <laughs> léegi nag may laaj ndax loolu diine ànd na ci ak bu ñu àndee nan laay def daal. d' accord Oustaz a ngi ciy ñëw léegi. Ah, <laughs> jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko ndokkeel. mbokk mi ngi tudd mu am Mouhamadou Mouhamad Ndiaye. mu nga mhm. fële ca xombal di ak ñun jotaay bi. Mhm. Mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko ndokkeel mbokk mi nee na Oustaz moom day dañ koo may koo xamante ne bëggu ko mu bëgg nag xam naa ne daal euh, nga wax ko ba xam nan lay def. waaw ki ñu ko may de xam naa kooku amul sens. ndeysaan ah takk ko la nëbul. waaw metti na lool. metti na lool. métti mhm. na ci ke takk. métti na ci keñ takk. dëgg la dëgg la. waaw dëgg la ci ñaar ñëpp la métti. Mhm. xanaa moom de kenn waru ko koo na may mhm. buñ ko xamee. buñ xamee ne nëbbu ko buñ xamee ne nëbbu ko. damaa xam ne ker saa ci jàpp bañ maye. wala dañ koo forcer maye. bu ci am ci ñaar wi rek. mënoon naa ñàkk. mu des nag léegi comme nëbbu te mu wóor na ko ne nëbbu. waaw ak ah, xanaa mu am sincérité gu waxtaan ak ki ko may. kooku it am sincérité euh, waxtaan ak moom. Mhm. ñu juboo ci waxtaan. Mhm. nan lay góor góorloo moom bañ nokk ko. Mhm. wala kii ko nëbbu nu muy ne bañ am fu ñu fu ñu yem. mu jax rek. waaw ñaari bu ñu ci waxtaan ci juboo ci rek ndax ay diggante moom waxtaan rek koy dox. am na ci góor ñi nag dañ lay takk nëbboo leen. ñu xoññal la ne duñ la duñ la yor. Mhm. duñ la wàcc. ndeysaan fitna la wala góor du la jariñoo. walaay loolu yiwut baaxut. yu yiwut baaxut. Mhm, loolu yiwut baaxut. moo tax foo fekk ay say ñaare bu ko mhm. yàlla jeexal. inna laa kaana aliyan kabira la. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. jëkkër ju fi kawe maa la gën a kawe. ju am doole maa la ëpp doole. waaw en tout cas waxtaan moom waxtaan leen ko rek. <laughs> ndeysaan ngeen seet ba xam. am na solo moom it mu góorgóorlu. waaw waaw lu daw yaram la de moom. lu daw lu daw yaram mm-hmm. waaw nobaabul mooy fexe bañ lay nopp góor gu nobaabul waaw <laughs> eh, ndeysaan jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di bëgg ci moom 88 628 98 98 33 841 22 33 قضى ومديئه waaw waaw kii Ousmane Diallo tudd ma nga fële euh, professeur euh, mat la mu nekk ca Pout CM bu Pout di ànd ak ñun jotaay bi. ki xaritu Mbàkke si la la mi ngi tudd Daouda Fall ma nga fële ca Thiès moom tam Daouda asalaamaaleykum. kii nag am Diouf la tudd professeur la bu professeur euh, bu jàngale wàllu informatique. nekk ca kër Samba Kane di ñun jotaay bi. kon am na ku ñëw mbokk mi ne ko. waaw kay ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. yow sor waaw. waaw kay kan la. Aliya. Aliya waa ñu rajo bi Aliya wala nga gën a jekkandiku. <laughs> ñu ci jàmm. bu baax kay alhamdulilah. waaw jërëjëf jërëjëf. waaw xoolal lu mu ngi président yooyu ndeysaan. soxlawuñu soxlawuñu dara. wut mhm, mhm. ak sunu sunu gars yi ne fii. ndeysaan. man mooy mooy sama xol moo tax Sénégal lu ñu sumb rek pour ñu am que ni problème la. moo tax ma naan si suñu kii na sën bi ñu ngi dem naan ay ñoom ñooy favori. Mhm. mais yàlla xam ne di bëgg a dund fa duñ ko defar. ndeysaan. non ak yi nekk Sénégal moo tax Diop ku bos rek. tey kii maan <laughs> jërëjëf Aliya ñu ngi koy jaajëfal oustaz tey rafet lu duggam bu am solo. mbokk mu ngi tudd professeur Cheikh Fall euh, Silla. Mhm. professeur Cheikh Fall Silla mu nga fële ca lycée Toubatoul ja ànd ak ñun jotaay bi. ñu koy nuyu moom itam di nuyu waa lycée ba ca Toubatoul yëpp tey rafetlu noonu ñuy ànd ak ñun jotaay bi. ñaar fukki simili ak juróom moo ñu desee ci jataay bi Malick Thiaw ak aawam ak ñaareelam ña nga fa la ca Tëngéej di ànd ak ñun jataay bi Aline Nguer taximan la di ànd ak ñun jataay kii nee na daa bëgg a bokk Hadj Mbacke nee ko nu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah bisimilah. waaw Assane. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. waaye ñu encouragé jullit ñu gën a góorgóorlu gën a seen seen islam. jërëjëf. ñu sakku gën a gën a wécc ci borom bi tabaaraka na ku koy rey rey ay ay téeméeri téeméeri yeneen. loolu xëy dem lii. waaw rëy ay téeméeri téeméeri seen xëy dañ liggéey naan. est-ce que dañ koy dem sax seen yaram. est-ce que kon ñun bu jot a ji nañ sant yàlla ci gën a góorgóorlu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas mm. na ko wax sahabatul kiram. ñu jaaxle ci métti. ndeysaan. ñu leen daanam suy ci suñu digg. jël ci bopp bi. ba mu def ñaari ñaar. te du te du wax. allahu akbar. waaw te du wax. ndax lislaam yooyu. ah ku bëgg li mu góorgóorlu. Mm-hmm. wala taqtuluu liman yuqtalu fi sabiilillaahi amwaat. bal ahyaa'un mm-hmm. walaakin ah, laa tash'uruun. Mm-hmm. kon borom nag bu ñu fukk ni ñu ñu rey ci yoon bi. dañoo dee waaye ñu ngi ci seen borom yéen a ko dugg. mënuñu ko dugg mënuñu ah, ko tax bal llaziina qutiluu fi sabiilillaahi amwaat. bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun. borom bu leen njort mukk li ñu rey yoonu yàlla ku mel ni muur ak ñooñu dañoo dee ñëw nee na ñu ngi seen kanamu borom ba seen borom tuuli leen di la sëgg yàlla ñu yàlla dolli sutural amiin yàlla ñu yàlla dolli nangul yàlla ñu yàlla tënk ci lislaam rëyuñ ci lislaam rëyuñ ci iman fekkañu ci iman amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Assane Dir ah, moo noonu Oustaz ñu ngi koy jaajëfal. jaajëfal mbokk yëpp waaye ah, mbokk mi ngi tudd Assane Diop mi ngi ci Kaolack di ànd ak ñun jotaay bi. di ko béggee moom itam di nuyu waa Kaolack yëpp tey bëgg ci ni ñuy ànd ak ñun jotaay bi une heure jot na ba tey juróom-ñetti simili 88 628 98 98 33 841 22 33. Modou Mbengue mu ngi fële ca New York di ànd ak ñun jotaay bi Pape Thiam ci amoo de la nekk di ànd ak ñun jotaay bi Assane Diallo ma nga fële ca Déganchor moom tam Assane asalaamaaleykum kii maam mbay la tudd ma ngi ca ndar di ànd ak ñun jitaay bi joor ndaw mu nga nekk fële ci CTO ci Grand Yoff di ànd ak ñun jitaay boom tamit xalifa Fall ma nga ca Géejawaay Abdullah Fall ma nga ca Kër am na ku ñëw xaaj Mbàkke ne ko dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay Diop. waaw kay sëñ Mbacke. Diop Diop mi ngi ci jàmm. mi baax alhamdulilah. maa ngi koy nuyu lu bari. jërëjëf. ñu jël nuyoo bu jox <laughs> yaa rabbal aalamiin. waaw waaw yal na maa ngi rafetlu émission bi lu jërëjëf. bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñu rafetlu saa yi ngeen invité woon tànk. Mhm. al Amin ah, Darame. Oustaz Lamine Darame. waaw Lamine Darame. Mhm. ndeysaan man dama koy topp lu bari la. waaw jàmbaar la ku baax la. waaw dama koy mhm. topp macha allah. waaw kay. di laaj Oustaz nag tey euh, ndax nit ñi nga xam ne dañuy jékki nit ñi dem. Mm-hmm. loolu li ci yàlla wax lan lan la ci yàlla àtte. Mm-hmm. ndax damaa defe ne daal xëy na ñuy def loolu ñu ci ëpp dañoo xamu ko. Mm-hmm. ma doon laaj aaya bi yàlla wax defe naa def sóoratu Isra. Mm. wa kullu insaanin alzamnaahu. Mm. ta'irahu fi unuqihi. Mm. wa nukhriju lahu yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuraa. wallaay ndeysaan. ikra kitaabaka kafaa bi nafsika wallaay ndeysaan ñoom ñaan lu tax demal ma ci aay boobu. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen rafetlu bu baax a baax seen seen seen seen seen waxtaan. macha allah di rafetlu seen i xalaat. di rafetlu ni ngeen faram fàcceel ba ñu xam ba xam ne. Hmm. yal nañ leen yàlla fayal. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla amuñu seen fay yàlla nañu leen yàlla fay. amiin amiin waaw ndax da ngeen ñoo fekkoon ci ak lëndëm. ndeysaan daal ñu jox ak dugal ñu ci ak leer. jërëjëf moo tax ñu dañ leen di topp fu ñu mën di toll. jërëjëf di topp. jërëjëf li ngeen ñuy wax li ngeen ñuy jàngal. Mhm. daf noo doy. macha allah te li ngeen ñuy jàngal amul lu dul lu tegu ci wut ci siraatul mhm, sax. moo tax ñu topp. ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Diop ñu ngi békk ci sa bu am solo boobu te di leen dokkeel soxna Kumba tey nuyu Cheikh Abdallah bu baax a baax a baax mbokk mi ngi tudd Ramata Diop mi ngi ci université Cheikh Anta Diop di ànd bi. ñu koy jaajëfal baax moom itam ak waa université ba yépp ca surat al isra la dem ni mu ko waxee aaya 13 jàpp 14 wa kulla insaanin alzamnaahu taa'iruhu fi unuqi mhm. wa nuxriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura hmm. hmm. hmm. dina duñ seeti boîte boîte boobu. mooy enregistré li xew. moom daa mel moom la koy introsé laaj ko ko. mu wax lan moo xew. ga essence baa jeexoon. wala panne technique la wala nangam ki nangam. loolu boo demee ci téléphone it boo jëlee puce bi. dana la daan la wax. appel manqué yi appel composé yi nangam nangam nangam mm-hmm. loolu sunu borom daf ko defal nit koo mën di gis nag ndeysaan te mel ni kooku gàll rek. Hmm. alsam naw taayro fi nuqi hmm. boo sa géen ba làmb sa fii hmm. daañ fi donj wii daa mel ni foofu la nekk ku ñëw yombal xaam rek dañ koy gën rek ne la liiral ne la liiral su ko defee moom tam mboolem li nga doon dund appareil boobu euh, enregistré na ko léegi nag du jar yàggal iqra kitaabak liiral nga daal di liir gis na yow sa sa sa sa sa sa sa boîte boobu. Mm-hmm. lii la enregistré ci yu baax. Mm-hmm. yu baaxu di lii la. bi mm-hmm. lii la def ñu seet ba xam nag. waaw. wan xuruj law yawmal qiyaamati kitaaban mansuura iqra waaw. am na ci borom xam-xam ñu wax ne. Mm. looloo jur maxtuuma ci ci ci nit. waaw maxtu mi ñu takk nii. loolu suñu Abdou Mbacke. waaw waaw waaw am na ñu ne looloo ko jur. Mm. ndax bëgg di ko fàttaliku. très bien waaw ku ne yaa yor say bagages de. waaw kay. moo tax boo ca defee lu dul loola. xamoo li xew. dëgg la. waaw tabarkalla. dëgg la kon ñun ñëpp ko ci nekk am na loolu. Mhm. léegi nag yow la xam nag nu génn ko nag na la liiral. ndeysaan. macha allah jërëjëf jërëjëf kafa bi nafsika yowma alayha sa bopp doy na la eh, seede waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw kay Adja Mariama Dramé def sant yàlla bu baax. na ngi leen di ziar. jigéenu Alaaji Pam Njoogu. waaw dafa doon laaj. <laughs> Ah. sa yaay faatoo sa baay faat sa borom kër faat ndax boo leen di ñaanal euh, da ngay boole ñoom ñëpp boo jullee ba pare li ngay def wala lixlaas wala da ngay defal ku nekk beral ko. d'accord jërëjëf Dramé Oustaz a ngi ciy ñëw léegi. bu baax na. alaaw ndeysaan. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax Oustaz tey rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk mi Moustapha Ñang la tudd mu ngi ci Cikki Wolof di ànd ak ñun jotaay ñu ngi koy nuyu moog waa Cikki Wolof yëpp sëñ Moustapha jërëjëf mbokk maa ngi noonu Oustaz nee na ki nga xam ne waajuram dafa génn àdduna xëy na muy wu góor waa gu jigéen mu war leen ñaanal ndax mën na leen boole genn ñaan gi rek wala kenn ku nekk da koo war a e, beral ak ñaanam dam laajee ba leen sànq sama xel daa dem ci hmm. ku ma woo di ma laaj mu ne ma hmm. man ñaari su ma ko defee bala maa noppi ndékki jot hmm. ma ne ko lu xew mu daan may tudd ñu bëgg a ñaanal ñëpp ma ne ko doo ci génn dafa bari baadu waaw hmm. doo ci génn hmm. mu ne dañ ne ko léegi da ngay ñaanal yonent bi ñaanal Aboubacar Omar Ousmane Ali <laughs> boo defee nga ñaanal Talhat ak Zubayru boo ci noppee nga ñaanal sa papa ñaanal sa yaay ñaanal sa xaw ma lan tey mu neex de ko doo ci génn léegi nit ki su fekkee dafa julli ba sëlmal bu ñaanalee julli ñaanal na ñëpp. <laughs> bu ñaanalee julli ji rek ñaanal na ñëpp. même bu ñaanalul kenn sax bi muy julli mi ngi ñaanal ñëpp. <laughs> dëgg la. iyaaka naabudu ku ci ku ci génn. kenn génnu ci. ñu dund ñu faatu ñëpp. ñëpp ci bokk. waaw wa iyaaka nasta'inu. moom ñëpp ci bokk. ihdinaa ja. ñëpp a ci bokk. jeex na. <laughs> bi ngay taaya. Hmm. Euh, asalaamu alaynaa. Hmm. asalaamu. alaynaa alaynaa ku hmm. ci génn. kenn. wa ala ibadillahi saalihin ku ci ñëpp ci bokk. jeex na waaye ñu ngi def nag da ngay sëlmal defal kii fukki xul walaaw ak ñett daal di jóge defal Pape Dieng fukki xul walaaw ñett. Mhm. daal defal euh, Nogay fukki xul walaaw ñett <laughs> doo ci génn. dëgg la de doo ci génn. macha allah incha ah. allah yal na yàlla dimbale. amiin amiin yaa boo ci nekkee da ngay sonn. dëgg la de sonn day mbokk gi nii. jërëjëf ñu jaajëfal la bu baax a baax ci leeral yu am solo yooyu mbokk mi kon ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw. man maa njëkk na dugg sama laaj bi yeggutoon mais wax dëgg yàlla sant nañ la bu baax parce yeggaleel nga nu ko. jërëjëf. mooy taximaan taximaan bi njëkk na dugg. waaw taximaan bi doon wax yëpp. client yi nangam nangam. waaw mais loolu moom am na ci yàq ne moom suñu koy yóbbu moom xam nañ li muy defi mhm. waaw loolu moo taxal ñu dugg di ko laaj. d'accord. beneen bi ci topp. Hmm. ñoo ngi laaj oustaz jigéen bi nga xamante ne bii da nga bëggante am moom. Hmm. nga financé ci lu bëree bëri. Hmm. daanaka moom boo ko doon lim daal ay dem na dem na dem na lu tolloog mat na ay 4 millions jëm cinq loolu bari na di. waaw bu demee maanaam ba moom taxaw pour wor la. Hmm. est-ce que may na la. lootu de wor maanaam mu dem gis keneen ku mu bëgg nar a sëy jéeg moom. waaw nara a sëy jéeg moom. ndax yow lislaam may na la nga liggéey ko takk ko wala nga bàyyi ko yàlla. d'accord seetal rek. waaw loolu daal bëgg na bu jàllee nag oustaz moom soxla na numéro. incha allah. <laughs> waaw numéro xaw ma nag nan la ñuy def am ko mais dañ ko soxla spécial lu bokkut d' accord bu émission bi joxee nga woote ci 33 825 18 30 ñu jox la ko dégg waaw yor naa numéro boobu. jeex na foo ci woote rek ñu jox la ko koo jot mu jox la ko. allah <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal te rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi Pape la tudd ngi ci Sika Mbaaw excitation di ànd ak ñun jotaay bi. ngi koy nuyu di nuyu waa Mbaaw yëpp jërëjëf Pape Sylla mm. mbokk mi dañu noonu Oustaz nee na ki nga xam ne day ngoro am jigéen daal joo xamante ne moom lay bëgganteel mm. eh, yàlla dogal nag mu sori ca mbëggeel ga lool ba tax sax mu ne daal def na ci alal ju baree baree bari ba lim ay millions soxna sa gis keneen ku mu bëgg a sëyali nag faf ko fa yéenee bàyyi mu tudde ko ay wor mu ne ndax danañ ko may dana dagan ci moom mu dem liggéey ko wala déet ulama yi dañ doon wax ak gone gu jigéen hmm. ci nga nërta hmm. ko lekk lu hmm. loolu moom ku jigéen ki lañ ko doon wax ku ki lañ ko doon wax ki nga nërta sëyal bu ko lekk lu dërëm boo ko lekk lépp dërëm te nar koo sëyal nanga ko bind mu dugg ca may ga ku góor it nun la meloon ginnaaw yow takkagoo. Hmm. loo yóbbu ci ay millions nag Mbàkke. ah wax dëgg yàlla daa bari de moom xam naa xër na de ndeysaan. ah comme takkagoo. Hmm. léegi nag lu tax nga bëgg ko tudd ay wor. Hmm, ki wor mooy ki jo joxe may gu njëkk. ñu dencal fa may gu njëkkam ga léegi jël geneen may gu njëkk. waaye su fekkee yaa ñëw rek lu xew nga nga joxe. nekk sa ndeysaan. waaye waaye jërul daal muy dem di ko liggéey wala muy. ah nag su boobaam. Mm-hmm. liggéey moom. àtte mm-hmm. wala tusirikun. Mm-hmm. ku la fi man a bàyyi daal nga war ko fee mën a ba. rek mu jeex nag. rek <laughs> te te yedd sa bopp ci. nun nga doon defee. nga xool beneen yoon mu bañ. laa gën a jafee jënd ci àdduna. ak nobel. dëgg la. ak nobel. amul prix. ndeysaan. buñ la xasul nopp. loo mën a def kenn du la nopp. buñ la nobee nag. loo mën a def du tee ñu nopp la. ndeysaan. waaye nit daal ki mu nërta yor moom wërta mën a àgg ak moom fenn fi ñaar dañoo ñëw càlle di ngoro si mm-hmm. kenn ka lañ nopp ki jëte nëbbuñu ko ndeysaan ñu lakkal leen gerte mm. kiñ nëbbut mm. di yëy di taf ca lo yar kanamu kañ nopp mm. lu mu xolli rek ca kanam kee la koy waaw ndax bëgg koo saboote ndax bëgg koo saboté waaw bëgg koo ayibal ba doo sër ko très <laughs> bi ndaw si ñëwee mu ne ko ah waa yow waa yow diw mm-hmm. lii lépp yaa ko yii ci gerte gi. Mhm. waaye jiw daal vraiment nag. Mhm. ndaw si ne ko moom day xool mhm. ça veut dire que moom dafa civilisé di xool yoon da nga ko yéeyaale xott yi. mu jóg ñibbi kuñ nopp moom loo def ñu rafetal ko. jeex na mais oustaz bëggoon naa nga wax ak moom itam ak ñu baree bari. Eh, ci li mu wax noonu ne ndax eh, danga mën a dem liggéeyi ko wala déet. léegi nag euh, ndax euh, itam euh, loolu jaadu na daal dem liggéey gi ndax léeg mu dal ku jigéen mu ne daf ma wor kon dootu amati jàmm ba mu jaral ko dem liggéeyi ko wala mu dal ku góor comme nii mu bëgg koo defee ji noonu saa boo demee ci sëriñ sëriñtu nit mhm. liggéey ko mhm. ba jàpp ko ci mu sëy wala jàpp ko ci du sëy mhm. wala jàpp ko ci muy gis régalam yu të dëkk wala jàpp ko ci nangam yow mi ko def ak kalaa ko defal yéen ñaar daanaka yaratul ngeen di julli ndax fa baa ngeen di dellu ngeen di ñu ñun ñoo ko moom. Mhm. ndax ñun loo ko tuddee sirk. Mhm. ati wala tu sirkun. Mhm. wooj ji noob jigéen mbaa wooj ko mbaa dëddale ko mbaa yàq ko loolu kenn du ko def. te itam sëñ Bakke. jigéen nga xam ne wóor na la kii nóbbu la naturellement. da koo liggéey. léegi yow loo am. amoo dara amoo dara. wallaay boo ko yëg boo ko yëgul. boo boo ko yëg boo ko yëgul amoo dara. te itam doom yam cay am. Mhm. doom yi ndax seen yaay dafa joxoon xolam. Mhm. sëyal la sëy ba rafet ba nga am ko ci. wallaay déedéet wallaay. Hmm. muñal te wuti leneen yow mal xiyaam am na aussi. jeex na jàmm ni ñooy <laughs> jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal tey rafet lu duggam boobu juróom-ñeent minute moo tee ñu yëkkati jotaay bi mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah. oustaz Mbacke ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di nuyu Oustaz Alioune. jërëjëf jërëjëf. bu baax a baax a baax. saf na ci xorom eh. léeg jigéen ñi dugg. Eh, baax na ci kay. moom kay moom. feelu feelu Adja Kumba Diop. <laughs> am na solo bu baax. jërëjëf jërëjëf. dama doon bëgg laaj ci Oustaz. Hmm. Eh, maanaam génn àddina. Hmm. ni ñu ko war a le hmm. ndax dañoo war a nëbb ay ayibam. wala ndax ci jamono boobu dañ ko war a wax am déet. ndax euh, démb rek maa ngi koy expliquer sama émission. Mhm. di ko wax na ko moom mooy sama professeur. <laughs> ndeysaan ndeysaan moom Assane Ndiir mooy professeur am waaye man moom mooy sama professeur. ndeysaan ci ban émission la woon noonu fan ngay def émission. <laughs> waaw wul waaye itam ñu xam la. <laughs> wala da ngaa bëgg a bàyyi noonu rek. dama bëgg noonu rek. Ah. la man. ah Oustaz day wax kan la de neen. képp naa def. moom kay wax baa mu wax rek ndax man tam damaa war a xam xanaa. dama dama dama déggoon muy wax ñàkk seexlu goo xamante ni sunu borom ñàkk na. ah kii kay sama jigéen bala maa la xam nag bàyyi bàyyi a ngi am tawféex bu baax. waaw maa ngi sant bu wér. alhamdulilah bisimilah ñaan yeeg yëpp a ngi yegg si jërëjëf jërëjëf. ñu ngi kontaan ci yéen kóllëre gi yàgg na. mais ah, wallaay loolu yàgg na macha allah. waaw damay déggoon benn waxtaanam bu mu doon wax ñàkk seexlu ñoo xamante ni noonu la way jur di ñàkk seexloo doon. Mm-hmm. noonu la sunu borom di ñàkk seexloo jaam bi. dëgg la dëgg la kon ndax jaam bi même bu fekkente ni dafa nekkoon ci maanaam liggéey boo xam ne dañ ne daganoo mhm. ndax bu génnee àddina dañ ko ko war a seedeel am déet. d' accord d' laa bëggoon mu ñëwal ñu ci tuuti. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax te rafet lu dugg bu am solo boobu. te di la ndokkeel. ki mu tudd Abdou Salam Mbaye mi ngi ca Dalifort di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Abdou Salam Mbaye jërëjëf waa Dalifort eh, soxna su baax ti oustaz suñ jigéen bi eh, moom nee na yaay royukaayam ndeysaan seede na seede yu rafet ni mu ko defee ci kaw defee na nu ko rawee noonu ci suuf ba tàyyi. alhamdulilah eh, nee na itam daal ndax ku fi bàyyi ko nan lañ ko war a seedeele ndax nit ñi lim nekkoon bari na ci lu juunu lool waaye ndax dañoo war a wax lépp wala dañoo war a euh, wëy wëyee rek noonu. ki yàlla yónni woon. sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdullah. Moustapha ma ca hmm. dafa yoroon noppi garmi. Hmm. bëgg ñun ñëpp ñor noppi garmi. Hmm. ku ko man nga yoraale gémmiñu garmi. boo yoree ñaar yooyu. léegi jullit bu ma sëkk nga al muslimu man salimal muslimuuna mhm. min lisaanihi wa yadihi léegi nag bu ñu faatoo mhm. mu ne mhm. uskuru mahaasina mawtaakum dégg loolu <laughs> loolooy lan oustaz mooy nit ki faatu na li ngeen xam ci lu baax ci moom lépp tudd leen ko est-ce que allahu akbar waaye ci la yem nag ki xam safaanam na na ca cell léeg-léeg nit ñi ànd ci rob nga dégg ñuy waxtaane waa ji mhm. loolu dëgganut mhm. léegi-léeg ñu ne ca dëj ba di waxtaane waa ji mhm. loolu dëgganut ndeysaan waaw waaw dëgg la nañ wax ci moom lu baax daal wala ñu noppi lépp luñ xam ci moom lu baax nañ ko wax ku xam safaan ba ku xam safaan ba na ca noppi tey ndax safaan bi nga koy tuddal léegi yaa ngi yaa ngi xas as gor te xas as gor bi ci gën a métti mooy gor gu génn àdduna nga xam ne mënulaa laa tontu cee waaw kenn atteloowu la kenn séedaloowu la xam lu baax baa nga noppi xewee ca Madina mhm. jigéen ngay sang jigéen ni moom ba noppi xas ko fi mu ko tiim mm. loxo ba taq ci mu jigéen ja allahu akbar hmm. kenn ci dara dëgg la ba yàlla weer ko mhm. ñu xam ne daa xas as gor mhm. ñu duma ko ay yar mm. loxo ba door dañ kon nag uskuru ma xaasina xaasina mawtaakum macha allah tegtalewul ne ku faatu daal dañoo wax ne man damaa dëggu moo tax du ko waxal lu baax wala dara waxal lu baax li boo ko mënut itam kenn obligé wu la ne la waxal farfar su noppi te kii boroomam mhm. moom xam na waa ji mhm. Mhm. moom xam na waa ji dëgg la te da te itam mën naa am mën naa am yi nga jàpp ci moom leneen a am lu bokkut te li nga jàpp waaw parce que nit mënta xam nit. déedéet kenn xamul nit. yomatul la saraay rek wallaay ci la lépp di feeñee. wallaay ndeysaan allahu akbar. jërëjëf oustaz kon nag ñu ngi koy a baax. jërëjëf allah jërëjëf di ko ndokkeel di ndokkeel mboolem yarkat yooyu nga xam ne ñooy waxtaan ci société bi ngir bëgg mu jàkk une jot na ba teg ñaar fukki simili ak juróom benn Cheikh Ahmed Tidiane Baro ca Ziguinchor la nekk bu fekkee nu lañ ko waxee. madame Diop ma nga Kër Massar nee na ne la wugut. Aji Mbàkke dina ñeenti simili ngeen desee ndax une heure moo jot ba teg ñaar fukki simili ak juróom-benn. ak mu jiira mbokk mi ne daa bëgg bokk ne ko. ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. Mbacke Sylla maa ngi lay ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar Al Xuseyn. di rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. kontaan ci oustaz bi ngeen invité woon na oustaz Mouhamadou Amine. jërëjëf jërëjëf mi ngi lay fay. mi ngi ñaanal Mouhamadou Moursi yal ko yàlla teeru teral ko. amiin yaa rabbal alamin amiin. tabbal ko ci àjjana yu gën a kawe. amiin yaa rabbal alamin amiin. am nañ yaakaar ci lool di li xatal la. amiin ndax yàlla amiin. dañ koo toon faat ko. wallaay ndeysaan. yal na ko yàlla yërëm teeru ko teral ko tàbbal ko aljanna yi gën a kawe. amiin yaa rabbal alamin amiin day nañ ko gën a bëgg. dëgg la. wax dëgg yàlla man bu ma bu ma déggee loolu daf maa métti lool. ndeysaan ñëpp la métti. ñu ngi rafetlu suñu imaam tamit li mu def suba incha allah mooy jullee ko ñëpp ñëw ñu ko ñaanal ko. jërëjëf jërëjëf. ñëpp soo daaw yëpp yal na yàlla yërëm teeru lu ñoom ñëpp a kawe. amiin koy ziar ni muy def noonu la lu xew ci réew jullit ñi rek mu invité oustaz Mouhamadul Amin mu waxtaanal tey lépp lu lëndëmal ci bopp nit ñi leeral na ko. wallaay ndeysaan wallaay. ñi ko bëggoon gan nañ koo bëgg. ñi mm-hmm, mm-hmm. ko bëgguloon sax tey bëgg nañ ko ndax li dëgg ci oustazul Amin. ndeysaan oustazul Amin. ndeysaan jërëjëf. mu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp. jërëjëf jërëjëf jullit ñëpp maa ngi leen di ñaan ñaanal ko. Mm-hmm. rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf alhamdulilah. jërëjëf Alxuseynu Diallo ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafet lu dugam bu am solo boobu. mbokk mi ñu ngi tudd Kéba Thiam nga ca kër Moussa nee na di ànd ak ñun jotaay bi ca kër euh, Samba Gueye. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal ñëpp di xooli auditeur wala auditrice bu mujj bi door a yëkkati jotaay bi incha allah. waaw nee na mi ngi nii. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw. jërëjëf yal na yàlla na. su dafa am sama benn xarit. waaw. soo soosu dugg sax moo tax mu koy dugg kon waaw xam nga comme lépp la kenn. Mhm. léegi nag ndaw si dañ kaa mayoon mais buñ ko mayee. nee mhm. na moom da doon jooy ba sax benn jànq bu nekkoon ci kër gi dafay yërëm mhm. di ko jàppale ci jooy. ndeysaan loolu dafa am. léegi nag te nee si dafa dem ba am ci sëy bi am na fa ñetti doom. te moom bi ñu waxtaanee keroog. ni mu waxee daal ma gis ba léegi nii daal moom soxna si basal xalaat moom mbaa du ay d' accord su fekk soxna si daa am ay jafe-jafe bu ñu tamit ci loolu ndax loolu moom dafay bëri karaamee mhm. moom moom soxna si daa ay jafe-jafe muy xalaat ne bu tasoon mu takk ko wala. lan non soxna si sax góob moom góob góob daa jafe-jafe waaye daal nee na ñoom ñi ñuy gisee léeg-léeg ñuy waxtaan dañoo seqoon dara lu jiitu muy sëy ah d'accord waaw koy baax na jërëjëf <laughs> loolu kiimaan la di jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax baax te di ko ndokkeel jaajëfal mbokk yëpp tabarakallaahu ñi nga xam ne ñu ngi ànd jotaay bi ci biir réew mi ak ci lañ koy jaajëfale jaajëfal la oustaz mooy auditeur bi nee na waaye ngi nii ne daal xam naa bi mu déggee waxtaan rek léegi li ngay wax ci lay ëndaale laaj boobu mhm. koo xam ne daal am na soxna bu suma xamanteel xay na ña ngay waxtaan ak ay defi yëf ba sax muy wax ci xelam kii daal bu amuloon borom kër dama koy takk mhm. wala tey jii bu doon dafa tasit ma takk ko muy laaj xalaat yooyu ak loolu muy labat ci xelam baa du ci am bàkkaar du ci am bàkkaar waaye gënut du ci am bàkkaar nag waaye gënut mm-hmm. man daal xalaat bi ma jàng ci alxuraan ñu ne ko def am bàkkaar mm-hmm. mooy nit koy xalaata génne lu ñaaw lum xamal nit mm-hmm. inna alladina yuhibbuuna an tashi alfaisha fi lazina amanu kookum day bàkkaar ku toog di xalaata génne lu ñaaw waaw même génne gu ko nag. Mhm. da ko xalaat génne rek. xalaat gi rek bàkkaar suñu borom bi ne ko bàkkaar. allahu ci kii nag li muy def nii xam naa du am bàkkaar. Mhm. waaye na gënut. Mhm. waaw fexe daal ba génnul ci mu xelam loolooy li gën. te itam penc bi suñ bàkkee. aada ji daay yàq sëy. aada ji. dafa dafa doy waar. léeg-léeg bàyyee lank ne du maye. te ko fenn. léeg-léeg yaay du maye te tegu bàyyi naa la àdduna ak àllaaxira hmm. kii nobbay da geroot te it kii ngay bañ ne doo ko ko may hmm. daanaka mën nga ne nit gënu ko dëgg la ab julit la hmm. gëm na yàlla am na jom léeg-léeg amul xaalis mais am na jom dëgg la boo amee jom may ko te yonent bi waxutoon ko am xaalis déedéet ko am jom la waxoon man tardaw na diinahu wa xuluqa wa xuluqa <laughs> fa zawijuhu illaa tafaalu takun fitna fitna wa fasaadun kabir <laughs> akbar léegi nun fu ñu toll lu yonent bi moo lañ bëgg daañ ko siyaare ji borom barrière ba ci ma Madina mhm. waaye lu mu wax jaar ni nu bëgg jaar nii dëgg la de wallaay wallaay ba léegi tegoogun kon ca yoon wa ndax bëgg daa war a ànd ak maa ngi jégalu seen soxna xam naa du ma mhm. waaye dafa benn bis mhm. mu ne ma oustaz mu naa ah, mu ne ma sa fajarug tey yar yi nga ma caw waaw léeg nga dugg ci kër yi jàpp ci nopp yi de ah. mu ne ko ha mu ma demaa ànd ak sama doom ju jigéen ñuy dem di xëyi nga xëy ci nun maag moom mm-hmm. loo xam ne noo ko jotee mm-hmm. ndekete man mi maa tooñ allahu akbar ah waaw te moom doom ji mënu ko wax yaa tooñ nee na doom ji ne cel mm-hmm. mel ni ku naan ma ndokk <laughs> nga jàppal ko ko rek nee na nu xëy ci liggéeyukaay bu tuddanti wunu waaye fas naa li ma fas li ma fas mooy su ma di ma jëkkër ga woo faroo may ko ko parce que rek la nga problème bi <laughs> <laughs> macha allah. mu ne ma fajar googu daal saal. macha allah mu ne ma dur ay yar ba sama doom. macha allah macha allah yal nañ ci yal nañ ci jubbantikoo ñun ñëpp. ko ba la sëñ Mbàkke affaire ndeysaan. léegi léegi ndeysaan benn jànq am ni yaakaar ni Alioune Sall mën na ci dara. Mhm. waaw mu ñëw ne la Oustaz. waxal sama papa sama papa. la wax la sama tante ndax daa am ku ñëw di ma bëgg mu ne ma da mu ne ko da ngay jàng wala mu daax ko mos naa ci ànd xaban jow mu jooy fa jooy métti ndeysaan ndeysaan wallaay ba ma jigéen ji ne waaw sa yoon ci sunu doom ji <laughs> waaw ba mu ñibbee nag ñu ne ko Aliou Sall mu ne man ci ñu ne ko jërëjëf mu ne wax ngeen xay wax ngeen ay ndeysaan est-ce que waaye noonu la tarkal ala xaal jar naa jubbanti am na solo jar naa waxtaane mm-hmm. kii dafa bëgg sa doom ji mm. jubuwu la hmm. ne juboo ma kat waaye du tee may la ko hmm. jàmm na ñooy dëgg la xale jigéen hmm. ñu góor ñi noppalu noonu tam na ñooy yàlla na yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin asbaak lu ci sant la jërëm la jaajëfal auditeurs yi woote ba egsi ak lu mu guddi guddi ak ñi doon tocc toccal te egsi wuñ nuyu waa bitim réew yi jotuñu leen a dégg tey ñoom alaaji Pam Ndiogu Sall ak sëñ Doro Sylla ak Pam Mor Diaw ak ñoom ñëpp rek une jot na ba teg fanweeri simili ak ñett oustaz xam naa dañ leen di dégtalaatal tafsiru Quraanul Karim bi ñu am